dem àjjana te deewoo moo gën dem moo gën moo gën dem dem élection 2024 te Ousmane Sonko bokku ci. nañu ne ci des imam la arrestation. arrestation la gis nga ñoom toujours dañuy paniqué mooy gouvernement bi état bi dañuy paniqué. te ku jiiteem réew dem ba mun dem ba yow lu yëg lu yëg lu melantaan sax su jógee nga paniquer defe ne réew mi tàkk na kooku dangaa xam ne yow amatuloo crédibilité amatuloo sax sécurité ndax ku ne xam ne ne arrêté bii nii arrêté nañ ko loolu ay diversion la rek waaye toppiwuñ ko dara amuñ luñ ne lii lañ koy inculpé amul lenn luñ ko mën a jàppee lu mu wax lu kenn waxut Abdou Karim li mu wax la ñëpp wax moom la imam Alioune Badara Ndao waxoon moom la Sénégal yëpp wax. ñu ci bari ñi ci ëpp Sénégal 90 pour cent yi boo leen laajee dañ naan imam Aliou Ndao Macky Sall moo ko liquidé loolu la ñuy wax loolu la Abdou Karim loolu la wax panique amul njariñ gis nga juge yi ak ak ay ay dig ak ay kii nañ xalaat ni réew mi intimidation taxut ñu joxoon leen réew mi injustice taxut ñu jox leen ne leen yéene justice bi Macky Sall moomut Sénégal mënut a yor suñu président de la république yor suñu budget yor suñu lépp di gardien di la constitution ba pare ñu am lu ñu naqari duñ ko ko wax lu yàlla mayu ko kenn lu yàlla mayutoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayu ko kenn du ko may Macky sàll danay def waaye faw mu am nuy wax Abdou Karim Gueye xorom xàq dañ koy bàyyi rek loolu dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy làmb rek bu guddee nga dégg ñu ne libéré nañ ko paniqué lañ def dañ paniqué panique mooy lañ dañoo ray dañoo dañoo dugg ci loo xam ne nii xamuñ fu muy mujj ak ñoom ndax xam nañ ne nit ñi mer nañ sénégalais yi mer nañ umma islam bi mer nañ aima yi mer nañ amuñ lu ñu mën a def ñu xëyit yeewu ci ci nelaw tiit na dem leen jëli Abdou Karim Gueye Xrum waaye dañ koy bàyyi dégg naa sax ñu ne woo nañ Cheikh Omar Diagne ñoom ñëpp dañ leen di bàyyi dañoo paniqué rek loolu amul gis nga problème bi nañ fexe ba régler problème bi sénégalais yi te dëkk bi ci yoon te bàyyi seen tatoni yi ñu defak seen yi ñuy def nii am du dem intimidation yi du jàll hmm, jërëjëf. waaw Ibrahima bu ñu jugee foofu dañuy jàll directement ci nomination ki nga xam ne moom di Badio Camara nga xam ni euh, Cheikh Bara Ndiaye defoon na ci moom ay révélation euh, ñu gis ne daanaka na ko Cheikh Bara Ndiaye waxee noonu la amee. Euh, tam ñu gis ki nga xam ne moom moo di président de la république moom ne woon na dana def li nga xam ne moom moo di déclaration lu jëm ci euh, troisième candidature bu élection législative yi jàllee boobu ba léegi gisuñu mu def ci mu wax ci waaw wala déet ba pare ñu gis mu nommé ka nga xam ne moom moo di euh, Badio Camara président conseil constitutionnel ndax jàpp nga ni lu muy préparé la pour def li nga xam ne moom moo di troisième candidature. ah jërëjëf Badio Camara dafa am juge du am ku mu ñu yokk nopp ko nommé ko conseil président conseil constitutionnel waaye conseil constitutionnel o ministre de la justice o ministre de l'intérieur o amul kenn kenn ku yàlla bind ku mën a tax président Macky Sall 2024 23 février 2024 mu nekk président Sénégal amut amut kenn ku ko mën a def président de la République 2024 mënut a nekk Macky Sall loolu moom dafa war a leer dégg naa rek Cheikh Bara Ndiaye di waat naan Macky Sall du doon du doon président 2024 loolu jurut waat Baaba Maal tukkulóor la jurut waat Baaba Maal tukkulóor la jurut Sall du doon président 2024 loolu jurut waat loolu kay xam nañ ko moom xam na ko affaire troisième mandat nag du ma wax ne waaw du ma wax déet. am na ci droit. troisième mandat li ma lay wax wax naa ko waxati ko président Macky sàll bu ko soxna Marème Faye Sall joxe troisième du ko naan bu ko joxee troisième du ko naan dina naan ëwal deuxième waaye du naan troisième troisième mandat miim réew ku yàlla bind say tànk féete kaw say bopp féete suuf ñi moo ko fee laaj Macky Sall ñi mu laaj troisième mandat benn nit ñi ñëw nekk ci affaire troisième manda moom nekku ci moom xam nga ci lu mu nekk Macky Sall mu ngi ci moom nan lay fexee ba moom nan lay fexee ba am gouvernement ba yeggale mandat bi lay wax ak nan lay fexee ba waa APR du xam li ñu bëgg waa APR yi yooxu naan troisième mandat troisième mandat Macky Sall moom day bëgg fexe ba ñoom bu ñu xam lim nar xam nga lu mu nar liñ ko yéene ñoom waa APR ak ñi ko wër bëgg ko dugal ci guta bëgg mu dugal ko ci mu salfaañi réew mi ñoom loolu lañ bëgg te Macky sal du leen ci fekk si ñoom dañoo def seen i ànd ak def seen i lépp te xam ne Macky Sall moom mën naa mën naa am mën naa amu mucc waaye ñoom xam nañu mënuñoo mucc ndax alal réew mi ñu ngi ko jël def ko noo xam ni ba Sénégal yi nekk ci ay situation moo tax ñuy yuuxu naan troisième mandat troisième mandat troisième mandat Macky Sall troisième du ko wax bu ne troisième balaa yegg ci mandat wa waxuma la nag ay daan ay Badio Camara ak Demba Camara ñooñu moom du ca yegg. troisième képp boo ko waxee balaa yegg ci mandat ñu fekk ko ci palais bi. waaw Ibrahima euh, bu ñu jugee foofu dañuy jàll directement rek ci sa leader ndax euh, ku nekk xam na ni depuis ba mu defee déclaration ni dafay doon candidat ñeel présidentielle yu 2024 ci lañ commencé gis ñu sulliwaat lu ci mel ni dossier Adji Sarr waaye itam a loolu gis nañ Pape Alé Niang dafay révélation ni moom ñu ngi ci kaw moom Barthélémy Dias ndax jàpp nga ni sa leader euh, maanaam nguur wala pouvoir mën ba a bokk euh, jërëjëf dama ne ñoo ñooñu di wax xamuñ xamuñ xamuñu Ousmane Sonko wala xamuñu sénégalais yi wala xamuñu lan mooy parti Pastef wala xamuñu projet bi dëgg-dëgg xamuñu ko projet bi ku ko xam xam taxawaayu jeunesse bi ak sénégalais yi fi ñu taxaw sama xel wartu jëm ci élection présidentielle 2024 sans Ousmane Sonko dem àjjana te moo gën dem moo gën moo gën dem dem élection 2024 te Ousmane Sonko bokku ci dem àjjana te faatu wala wax moo gën a yomb bu fekkee ne yàlla suñu borom mi nga xam ne moo ko man bàyyi na ko fi danañ ñu ñaanu yàlla mu bàyyil ñu ko fi ba 2024 incha allahu taala dana bokk Ousmane sonk dana bokk buy taw buy naaj buy tàng buy ngelaw buy dënnu buy xiin Ousmane Sonko dana bokk incha allahu taala dana bokk ci élection yi 2024. du ab juge du procureur du du du police du président di la république du ay lobby yu ne ca ginnaaw France ñëpp kenn ku mën a téye Ousmane Sonko doon candidat 2024 kon suñu borom mi nga xam ne mooy mooy mooy jàll jalaluhu amul. ndax gis nañ fi eh, kenn ki nga xam ne day wooye boppam féministe ah, ñu gis problème bi nga xam ne Sitor Ndour amoon na ko ak benn euh, femme de ménage ba ñu tegoon ko ci loxo mu ne pourquoi pas nag euh, maanaam ñu teg Sitor Ndour loxo ba pare bàyyi Ousmane Sonko muy dox ci li nga moom di mbedd mi te ñoom ñaar ñu bokk même. gis gis nga dossier aji saar man Ibrahima Gueye nay leer dama ci dul wax kenn mun ma dugal ma wax ci dossier Adji Sarr ku cay wax yaa cay wax waaye Ibrahima Gueye du ca wax kooku ngay tudd duma ko tudd tase nañ maak moom tribunal di Dakar. xam na xam na xam na Ibrahima gi xam na moom xam na moom ñu ci na xamut waaye moom xam na man xam naa moom ndaw soosu ngay tudd tase nañ tribunal di Dakar ci projet Ndeye Khady Ndiaye bi gis nga procès procès Adji bi du ci tontu duma ci wax dama ciy mel ni Ousmane Sonko ni moom laa ciy mel dossier bi daal am na fi benn dossier daal laa mën a wax mooy dossier terroriste yeeg tappale yeeg doomi jaabur yi ñu teg ci kaso beeg ñi ñu rey ci ñooñu laa mën a wax waaye beneen dossier moom du ma ci wax ndax du loo xam ne nii ñi ko yor xam nañ ni ñi muñ cee man du ci wax. waaw Ibrahima euh, dañuy daal di ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu installation assemblée nationale parce que ku ne xam na ni le douze la ñu war a installé assemblée bi. ndax jàppoo ni coow mënta dox ci diggante waa PS yi ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa APR ndax gis nañ ni ñu ci bëri ñu jàpp ni euh, président dafa bëgg a def ki nga xam ne moo di Pape Diop comme président assemblée nationale. te loolu waa PS bi ñu ko ko may ndax ñoom jàpp nañ moom benn seul député la apporté ci li nga xam ne benn bokk yaakaar alors que ñoom ñoo ko ëppale député naka nga gisee loolu ndax jàpp na ni coow mën na dox ci seen daal bu àndee ay workat nga xam ne seen jiit day wor ñoom ñuy wor ay workat bu ñu àndee moom lu ne mën naa xew lu ne mën naa xew mbaa xamu ne Macky Sall man ñeme naa daw daw daw xëy xëy daw daw génn Sénégal. président Macky Sall ñeme naa xëy ndaw génn Sénégal jamono jii bopp bi nekkatu fi bopp bi ku xool Macky Sall démb mu taxaw yorop ku daan ay hoo ko xool xam ne kii bu ngeen ko téewut léegi tey mu téppatiku man nag dama ko yërëm lu tax ma yërëm ko mooy dañ koy foyee def ko ab poupée maanaam farata ne lëng toll ni imam Alioune Ndao jënn fi àddina ñu jox ab coupe nga ne ci biir palais bi di taxaw naan woo yee woo yee mel ni gone gu ndaw loolu dama koy ñaawlu moom nag ko ay ay soxnaam wala ay ay ay ay ay ay doomam nañ ko encadré bokk ñii dañ koy foye dañ koy foye fowukaay lañ ko def te moom itam xamul ne moom dañ koy foye farata day dikk ne këtt na jonn mën na meeg Sénégal ñi dund ci ndox am mën mu dund bi seer coowal lu ne ne ci dëkk bi ñu wàcce la fee jox la ab coupe boo xam ne nii waxuma la uh, coupe de coupe du monde boo xam ne nii mosoo dem final nga taxaw naan di wax ak coupe di wax ak coupe naan coupe bi maa ngi lay ñaanal. est-ce que ñun xalaat nañ li ñu yor ñun nam coupe bi ñu ngi lay ñaan nga ñëw Sénégal ab coupe nan lañ koy taxaw di ko ñaan ñu ngi lay ñaan ñu di ñu ngi ñaan nga indi ñu gañe la ñi ko encadré bu fekkee ne ñoom xamuñu lan lañ yor ñun président de la république lañ yor buñ ko xamul ñun Sénégal yi ko faloon nañ ko delloo ay bokkam ñu wax ak moom mbirum euh, euh, nu mu tuddati euh, coupe du monde bi coupe afrique bi amuluñu njariñ stade baa nga ne ñu tëj ko bañ ko tabax ba te dañ koo tëj ñu benn njariñ kon nag bu ñu taxawee naan ay coupe du monde ak nangam ke nangam loolu amuluñu njariñ en tout cas daal ñoom ñi nga ne nii ñoo wër ñoo wër président Macky Sall ameel nañ ak sénégalais yi ndax nit dong la Macky Sall nit dong la waaye boole koog nit ñoo xam ne ay hypocrisie ay workat waa APR ak waa waa waa euh, moom xam naa ne lu yàgg-yàgg moom li ci kanam rawali ba ndax le le douze te xam ne assemblée nationale bii moom même bu fekkoon ne ñoom ñëpp ànd nañ lañ bëggoon ci la Macky Sall la bëggoon ci maanaam gouverner ci ci ci ci ci mandat bi ci li des ci deux euh, un an demi bi li ci desoon mënatul neex ndax da ko séq ñu am xam-xam séq ñoo xam ne ne xam nañ lépp liy rëq réew mi te danañ ko jëfleen danañ ko jëflanteeg moom ba xamal ne ko réew mi moom waaw waa APR nag waa waa PS moom ñoom mburoog soow lañ rek moom mën naa forox mën naa bañ a forox te gëm naa ne forox gi sax soriwut ndax mm, ay war way warkat lañ rek la ma ko waxoon ay warkat lañ rek ay ñaari warkat rek mm, bu ñu àndee moom war rek ciy mujj jërëjëf. bon ñoom jàpp gi leen jàpp ci insistement accusé leen terroriste def leen mandat dépôt kenn benn juge mënul taxaw ne lii lañ leen inculpé naan lañ ay rebelle lañ ay force occulte lañ ay ay ay ay ay ay ay jihadiste lañ. loolu ñoom dañoo amul lu ko justifié te ñoom taxul leen a jóg gis nga ñooñu jàpp ñoom taxul ñu jóg Macky Sall ñooñu yëkkatiwu leen Macky Sall kenn na ko yëkkati te xam naa ne bu fekkoon muy nelaw du ko ñemee yee muy mais ñoom jàpp ay Ousmane Diagne ak Ami ay ñoom Abdou Sylla ñooñu yëkkatiwuñu Macky Sall Macky Sall taxul mu jàpp leen Macky Sall li mu bëgg mooy parti bii nga xam ne nii mooy parti bi nga xam ne mooy espoir Sénégal ak leader bi nga xam ne mooy leader bi nga xam ne mooy espoir jeunesse bi espoir Sénégal espoir Afrique 2024 ñu fas ko yéene jox réew mi mooy problème waaye dax xam ne moom ki koy wóotu du ko du ko tànn Sénégal ya koy tànn te yàlla moo ne maalikal mulki tuutil mulka man tasaaw maay jox nguur ko ma neex ñi mu jàpp nag ñi ngi leen tëj ci conditions yi métti dugal leen ci ay cellule def leen man mandat depo ay juge def ko te du ngeen ci am ndam da ngeen di xëy rek ñu bàyyi leen. maa leen ko fii ñooñu noonu dañuy xëy bàyyi leen ñoom Abdou Sylla ak Papito Karaak Ousmane Diagne ak Ami Dia ñooñu ñëpp dañuy xëy benn bés rek na bàyyi nañ leen fii laa leen ko wax man Ibrahima Gueye maa leen ko dañuy xëy na bàyyi leen procès sax ci am procès du ci am ndax amuñ lu ñu leen taxal procureur de la République bi taxaw naan gis naa ab boo xam ne Ousmane Kabudi Diatta réyal tur wi naan jàpp nañ ko fii mu yor ay yor ay Dakar yor nañ fekk muy naan buy yooyu ñi fi ñàkk fayda yu en en tant que procureur de la république ñu jox la ab conférence de presse nga taxaw di patiner di lox say doom di la seetaan ngay lox di tiit di gestu di wax loo xam ne n'importe quoi di jël ay doomi jàmbur def ay mandat dépôt ay police ay commissaire jël ay nit di ko yóbbu garde à vue di ko dóor muy dee Sénégalais yi taxaw di leen seetaan ñoom dañoo yaakaar ne loolu day continuer ah. loolu du continuer gàcce gi Macky Sall nekk ak jaay doole ji mu nekk képp koo jàppale yéenay bokk gàcce yeeg moom. procureur de la république bii bu xoolee ci Bassirou Gueye dafa topp jéema a Ousmane Sonko ba bakkan yéen a làcc moom procureur Bassirou Gueye ba bakkan yéen a làcc Macky Sall xam ne mënu ci moom dara mu wàcce ko def ko ministre conseil de juridique ma nga ca palais ba mu teg bu xëyee jàkkaarloo moom xamul lu mu koy wax kon nag moom moom procureur bii bu jigéen taxaw yaakaar ne mën na ci Ousmane Sonko dara wala ñu ànd ak Ousmane Sonko day nax boppam xeexu bii ci Ousmane Sonko xeexu Ousmane Sonko ak faj ku rep ak suuxatum ngooñ ak yëfalu am ñoo ñooyam kenn du ci am ndam xeex Ousmane Sonko faj ko repp suxot am ngooñ kenn du ci am ndam Macky Sall na noppalu Ousmane Sonko raw na ko wéy na ci moom na gëm yàlla mi nga xam ne moo tax mu doon président doylu ji jiite réew mi bu mandam jeexee ni ko Ousmane Sonko yéenee mu yeggale mandaam na ci bàyyi xel Ousmane Sonko dafa bëgg mu yeggale mandaam ci jàmm delloo Sénégal ci jàmm su ko difutit lépp luy tooy ci moom lay jóge ak ku koy jàppale nag a gu mujj gi daal li ñu koy wax rek mooy la ma leen di wax rek laay waxaat di gën a delloo ñaanal imaam bi ñu jóge fi yàlla yërëm ñu ko ko àjjana di ñaan gi ñu jëm te màggal Tuuba yàlla suñu borom yóbbu ñu ceeg jàmm ñu génn ceeg jàmm lépp lu fi waaye indi ci ay ñaan yàlla na ko yàlla suñu borom nangu di ñaanal Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne ni mooy xalifa général kullu murit yàlla suñ borom yeggalew yéeneem yeggalew naana guddalu fanam lool di ñaanal mbokki sénégalais yi di wax ne nag euh, yéen waa Sénégal yëpp nañ taxaw ci wax Macky sàll mu bàyyi doomi jàmbur yi mu tëj ci kaso bi jaboru jàmbur yi mu tëj ci kaso bi jëkkëri jàmbur yi mu tëj ci kaso bi na ko bàyyi na ko bàyyi di ko wax kilifa ñëpp nañ wax ak Macky Sall mu bàyyi doomi jaambur yi mu tëj ci kaso bi ndax wattaqu fitnatan laa tasuubanna lazina salamu minkum xaasatan suñu borom ne na ngeen moytu fitna ndax fitna bu mu ñëwee du yem ci ñu ko def yépp ci ñëpp lay dem kon nag na ñu mën a wax ak Macky Sall nag mu bàyyi doomi jaambur yi ndax alal réew ji muy tasar tasaree senegal yi am ay jafe-jafe nit ku taxaw wax li ko naqari nga jël ko tëj ci kaso bi loolu injustice weesu te nag mbugalum suñu borom dana wàcc ci askan woo xam ne nii dañuy dañuy teg aw nit injustice jaay ko doole ñëpp ne cell suñu borom dana ci wàcce mbugal ci nit te mbugal moom nag ñaanalu ma ko Sénégal nañ wax mu bàyyi doomi jàmbur yi mu tëj ci kaso bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf